Eh, li ci yéenekaay yi soxna Aïssa Diakhaté si àndal soxna si maa ngi lay ziar. maa ngi lay fay Seydina Ba. tàmbali ko yéenekaay gi di Walf Quotidien. Walf Quotidien daal di xëy nag eh, fësal recomposition politique eh, mu ne parti socialiste bu Sénégal nañu jàpp ne rek bokkatul ci langue gi li ko waral nag mooy la daloon parti démocratique sénégalais daanaka moo koy yoot bu fekkente ne sax dund ko ba noppi journal bi nag daal di koy jagleel ñetteelu këyit bu Walf Quotidien daal di ci indi lu yaatu yaatu ne fi mu ne moom daanaka euh, ci euh, tas lay gën a nuróol parti euh, bu sengoor jamono ji sukkuraat la nekkee. le quotidien. le quotidien yéen kaay yi nag ne am na ñenn ñoo xam ne nag ñu ngay yëngatu ci seen front kenn ka ca PAES la bokk waaye nag fi mu dafa ber mbiru boppam muy xalifa Bakar sàll moom sax Ousmane Sonko jamono ji ñu nga joxante loxo di ab projet boo xamante ne projet d'alliance Sonko Khalifa Sall liñ ci mën jàpp nag mooy ne jamono ñoom la boole bokk na ci. seenub euh, jafe-jafe bi ñuy am ak njiitu réew mi Macky tax nag ñu daal di door ab alliance waaye nag mbir la dina takk suuf ci quotidien ndaxte nee nañu fenn dong lañu d' accord muy calendrier électoral bi. Sud Quotidien Sud Quotidien yéen kay ca la desandi fësal ma nataalu euh, Khalifa Sall ak Ousmane Sonko mu xam ne consolidation démocratique leen démocratie leen lañ bëgg muy yeesalaat démocratie ci réew mi ak état de droit waaye nag bloc bi nga xam ne opposition bi euh, sa na ko Sonko jamono ji mu ngi jamono ji mu ngi ci ay wuruf ñeneen ñoo xam ne dinañ ko jàppale ngir coalition bi gën a euh, mucc ay le mandat yi tamit ca la xëyee fësal nataalu ki nga xam ne moo di Sonko ak Khalifa Sall Ousmane Sonko Khalifa Sall union jamono ji waaye dafa mel ni dara am tax ñu booloo muy ne benn objectif lañu am muy écarter njiitu réew Macky Sall ci pouvoir bi. la tribune la nag moom la xëyee tamit daan ne multiplication rencontre yu euh, Sonko yi ci biir réew mi moo indi sax ne opposition bi jamono ji ñu ngi boole seen doole mu doon benn waaye lépp ngir rek euh, fexe ba daal di écarter ki di jiitu réew mi président Sall jamono ji waxtaan la door waaye nag leader bu passé féminin moom mu ngay wéyal ay tukkim ne comme lenn rek la bëgg a ratisser large dem nañ sax ba daal di fësal ay nataalu ñenn ñoo xam ne ay kàngam politique te fi mu nii dafa am defuñu lu dul rek boole seen doole doon benn jamono jooju nag la Khalifa Sall ak Mamadou Diop Decroix fas yéene door ak xeex bu amul àpp noppeetuñu toog ci seen ruq. la ñuy ruumandaat ne élection présidentielle ati 2024 ki ñuy xeeñ ne moo bëgg moo naraw nekk candidat bu troisième mandat bu njiitu réew Macky Sall du kenn ku dul Idrissa Seck journal bi jagleel ko ñeenteelu këyit bi Sonko sax ba tey ay mbiram waxtaan nañ ko ci critique daan ne euh, respect li nga xam ne moo di exigence yu njër jot biral ci ab bataaxal jébbal ko njiitu réew Macky Sall ak libération wu téeméer ak ñaar fukk détenu yi moom la leader bu Pastef di saaku lu ko mooy daañu amal ñaareelu vague vague bi nag nee dina tàng jër xay bu fekkente ne waxtaan juddu na ci diggante mag xarit général di murit ngir rek ñu daal amal jàmm moom Ousmane Sonko ne bu fekkente ne état bu Sénégal respecté wuñu li ñu jot a ñoom ak libération wu détenu politique yi dinañu daal wàcc mbedd bi a amul benn xajjate wala sax benn ñaawteef boo xam ne nii xoolee na ko bi réewu France dafa fekk na rek am na intérêt Sénégal yoo xam ne bu ñu ko naree bafoué ak fépp fu munta doon dinañ door xeex bu amul àpp muy xam le ne nag seconde vague bi dinañ dina am soo utul da fekkente ne état bu Sénégal dëgër na bopp taxaw temb ci li nga xam ne nii jot nañu koo xaatim ñoom société civile bi ak opposition bi enquête yi kaay def enquête bu yaatu yi tamit jëmale ko ci immunité parlementaire bu Ousmane Sonko Sonko fi mu toll nii dañu ko sax mujj recalé euh, économie bi fi mu toll nii daanaka euh, boo ëttul dana fa yegg waaye nag li nga xam ne nii moom moo tax ñu bëgg koo recalé euh, ñu ngi koy yaatal ci euh, biir xët jilee dem sax ba naan leaderu Pastef moom nañ jàpp ne rek dina ñàkk immunité parlementaire am définitivement xëy bu fekkante ne génn na sax ci situation bi nga xam ne dañ ko ca tuumal ak lu ci mën a am enquête def na ci ab gëstu bu yaatu vox populi moom waxtaane ba tey ci ñaareelu vague bi nga xam ne Ousmane Sonko mu ngi ko bi nga xam ne door na ko njiitu réew Macky Sall ak i mooy ab menace boo xam ne nii tënk na ko ci pouvoir bi ne manifester soo oto danañu wàccaat ci mbedd mi waaye dem na bay xam ne ne ñoom rek ñoo cay ñàkk ñoom nguur gi su fekkente ne nanguwu ñoo jëfe li ñu wax moom Ousmane Sonko naan amuñu benn problème ak France bu kenn jël euh, li euh, xeex bi centré ko ci euh, dëkk boobu boobule. l'observateur l'observateur yéene kaay yi nag moom desandi ci opposition bi nga xamante ne nii euh, daanaka ñu ngi bëgg a boole seen doole mu doon benn waaye nag faaw mu am lenn foo xam te ni dinañ fa daal di la xay bu fekkente ne jiitu réew Macky Sall jamono ji mu ngi ratissé large jëmale ko ci euh, kuréelu euh, diine gi Sonko nag ak Macky fi mu toll nii dem nañ ba jàppee leen les batman du cœur liñ ci mën a xam i tamit mooy ne président jamono ji ay principe la teg waaye nag dàq na bépp pression boo xam ne bëgg na ko ci ay du rek lu nu bëgg la ñuy def faw rek ñu jiital état de droit ak démocratie ci fànn bi lee opposition bi nag nee na ak lu mu mënta doon ñoom boo utul dinañu daal di wàccaat ci mbedd mi. l'exclusif l'exclusif yéen kaay yi nag génneel ab exclusivité jëmale ko nag ci mbiru Ousmane Sonko ak Adji Sarr ava suicidaire euh, daanaka ab kaddu la yoo xam ne nii bu jibee rek soo utul nag yuuxu dina jib fanu ko foogewul ndax Pape Samba Sow euh, loolu euh, moom avocat la avocat goo xamante ne nii moom dee na jot na gisanteeg Adji 15 jours avant éclatement wu dossier bi waaye mu ngi weddi ne musu ko rédiger la plainte bi maanaam musu ko bind waaye jox na ko ay conseil kii la nag di Mamadou Ndiaye moom ab journaliste la d'investigation nee na rédiger plainte ci avocat loolu sax mun nañ jàpp ne euh, daanaka lu lu ndaw a ndaw la yàgg nañu ko fee gis waaye nag loolee mën nañ jàpp ne rek mën na euh, indil ab euh, tuutange ci dossier bi dem na tamit bay leeral ni file ci diwaanu Ndakaaru nga toog nga dem ba France wala sax New York Alaska ba Amsterdam ak foo mënta doon Royaume-Uni mën nga fa bind plainte kon loole ab wax ju yàqu la rek exclusif yéen kaay yi tamit yeggaat ci renégociation gestion péage bi mu ne fi mu toll nii Sénégal mën na ne gagnant gagnant la ndax Sénégal jamono ji nag mu ngi gis boppam léegi ci doxalinu péage bi gannaaw bi ñu xaatimee déggoo ab kayit. Euh, les la ñu déggoo les échos sax ca la daal di dikk ne euh, Sénégal am na téeméer boo jël ñaar fukk ak juróom ci xayma daanaka koppar gi ci gafag ak réew mi lay dugg euh, fi mu ne nag Sénégal nag jamono ji gis nañ ne yaakaar na ne dina gis boppam fi mu toll nii tamit daan na teg ay luwaawam ci kanamu Sénat kon naxe mbaay gi ñu ay at yu jàpp ne rek léegi mu commencé jeex ndax Sénégal mu ngi yeewu ci bile fànn ndax renégocier nañu boobu lépp contrat koy daal di wuute ak ak CECA li nga xam ne nag moo di clause contrat bi daan nañu koy fësal ci xët yi dem nañu itamit bay àddu ci état bi léegi nekk na actionnaire nekk investisseur ak régulateur investisseur nekk yi tamit état régulateur Mansour Faye nee nañu diir ak juróomi weer réussir na loo xamante ne nii ay naataangoom ñu fi nekkoon jotuñu ko réussir muy rek jafe bi nga xam ne nii Sénégal mu ngi ko doon joytu bu baax a baax ci Euh, France nan lañ doon piller réew mi réew mi quotidien moom moom Seydina dafa xëy rek ci mbiru Mansour Faye ak li mu jot a def ci euh, négociation APH bi lañ ca jotoon a xayma rek mooy ne téeméer boo jël ñaar fukk ak juróom yi ci gafag ak réew mi lay dal bu ñu ko dee xayma itamit lu toll ci euh, juróom benn juróom ñetti téeméeri million ci sunuy koppar daana dina dugg at bu jot ci gafaga réewu Sénégal. le soleil soleil di ko déggal ne autoroute à péage Dakar ay AIBD état bi am na ci cent ci capitalam lii quotidien yi tamit loolu xëyee autoroute à péage contrat bi defaraat nañu ko Eiffage Feminies nag euh, nangu na euh, jox euh, Sénégal vingt cinq pour cent huit cent millions yi dugg ci réew mi loole nag dañ doon xayma ne daanaka junni ci la ñu xayma woon ne dina ci dugg waaye juróom-ñetti téeméeri millions lañ ca jot am. l'évidence l'évidence yéen kaay yi moom xëy fasal nag li dakkal signal bu des médias daanaka ñun sax ñoo ko dundandoo ak file ci Walfadjri Walfadjri des médias nag nee na day wëyal xeex bi liñ ci mën a jàpp mooy yónnee na ab kayit di mise en demeure boo xamante ni leeraangi lay laaj ci Sénégal lan moo tax mu coupé signal bi ndax des médias nee na sanction bi teguñu ko fenn ndax dafa violer rek disposition article 26 bu loi numéro 2006 boo xam ne dañu ko daté du 4 janvier 2006 loi ba nag la mu wax mooy ne nit ki amoo droit tëj signalu nit ki fi leeg joxewuñu délai bu juróom-ñaari fan jàpp fukki fan ak juróom loolee nag bu ko xayma ni moom Bougane nee na Babacar dafa fóote ci fànn te Babacar Diagne nee na faw rek ki lee di euh, Bougane nee na faw rek Babacar Diagne leeral loolu laataa rek moo jëmale euh, mise en demeure bi ca ñoom. Dakar moom xëy fësal polémique bi nga xamante ni nekk na ci euh, vaccin AstraZeneca ma ñuy sar xolle ne jamono ji ab problème da caa juddu ndax AstraZeneca ñu bëri dañu rocciku ñu ci mel ni ñenn ca bitim réew tugal daanaka dañoo dakkal seen campagne vaccination Sénégal nag jamono génn dem sax bañ jàpp ne lii conflit géopolitique géopolitique la lu tax mu doon ko journal bi di ko leeral ne Sénégal décision bi mënu koo jël mënu koo jëlagum ndax commission bi bi ñu dénk wàllu validation vaccin bi nee na jaragul ñuy rocceeku ci AstraZeneca bu weesoo loolu tamit autorité sénégalaise yi faaw ñu def ci nànk ndax ñi nga xam ne ñoo di OMS ba tey homologué nañu li nga xam ne moom moo di AstraZeneca te ñoom nee nañ amagul benn problème waaye tamit France mu ngi sóoraale bu baax a baax agence européenne de vaccin ndax ñoom itamit waxaguñ leen ci euh, vaccin boobu lee di AstraZeneca donc mën nañ jàpp ne conflit géopolitique moo tax Sénégal rocceegu ci ba tey. source A A moom daal di xëy fësal nag li nga xam ne moom moo di euh, face cachée bu Tunkara Tunkara nag jàpp nañu ko ci week-end gi nu génn euh, seen état bu Sénégal gàll ci ndoddam mbiru terrorisme ak menace de mort waaye mu ngi dikk ci démb gi dafa sàccoon ay oto euh, lu toll ci ñaari téeméer ak ñeent fukk ak juróom-ñeenti oto de luxe yoo xam ne bu ci ne mu ngi jar euh, fukk ak juróom-benn million ci suñuy koppar tey nag état bu Sénégal gàll ci ndoddam leneen euh, loolee mën nañ ko toftal yi tamit ci tuuma yi nga xam ne gàlloon nañ ko ci ndoddam ak juróom-benn ñooñoom ci at yooyu nga xam ne nii amoon na jafe-jafe ak bitim réew. 24 heures nag moom xëy fësal ab dossier bu am solo jëmale ko euh, ci association mairie ci Sénégal mu ne euh, ñii est-ce que sax euh, nekkuñu ñu incompétent lu ci mën a am laaj dong la samp ne askan bi bu fekkente ne soxla nañu mairie ci Sénégal booy seet lu ci bëri ñoom dañuy lajj wala sax ñuy xaarandi état bi jël ci décision wala ñu xaar autorités yu gën a compétente ñoom ñu ñëw waaye maire yi néew na ñuy jàppale seen i askan seen localité ci loo xam ne nii état bi santagu leen ko. stade stade tof la toftalu dem nañ sax ba ne Messi jamono ji mu ngi rey espagnol yi bu baax a baax 20 buts la dugal ak et plus waaye fësal nañu itamit nataalu ki nga xam ne moom moo di Alfred Mendy tey nag mu fas yéene jàkkaarloo ak ay naataangoom ku mel ni euh, Mané Idrissa Gana Gueye Loum ak Ndiaye ci quart de finale yi ñeneen nag ki lee di euh, Mendy ñu ngi koy xaar ci kanamu Atlético tey si ngoon suñu lamb nag moom nataalu Balla Gaye la gën a fësal Balla Gaye nag mu ngi artu ki nga xam ne moom moo di Bombardier nee na ko dinaa ko duma dina ko daan. am na solo kon yàqali gi. ci 13 lay doon ci kàllaamay euh, wolof ñu gën koo yaatal. <laughs> ah mbokk yi ku jàppul sa sàcc rek daf laa laan. waa mi naan électricité ak si nañ. yow mi bëgg nag kaaraange moo xam sa biro sa kër.